mbokk depuis bi nga xamantene M24 taxawal na manifestation bu djegi dayo bi gis nañu ci biir manifestation bi ancien procureur muy Alioune Ndao wax lu yéeme Alioune Tine tamit wax lu yéeme moy Macky Sall nu mu def ba téye Ousmane Sonko ci samedi bi ak ci dimanche bi ba ci lënd bi ngir bëgg ko prison loolu lay wër ba tax na ñu ci bari ñu ngi am diversion dana ko def wala du ko def waaye lu ci mën a doon muy patriote yëpp dañoo a sax taxaw teem maanaam cokkoon luy toog te nga xam dara bañ laa bett lu leen jaral rek ci jël Ousmane Sonko mu jaral ñu rek ci vidéo bi ko président Ousmane Sonko lan commenté waaw patriote ñu ngi di jaar bu baax a baax waaw gis ngeen ko noonu ñu ngi buntu kër Seydina Ousmane Sonko toog focus jàkkaar la buntu kër gi focus rek waaw fu mu ne rek ñu ne fa dañoo ñëw Ziguinchor doon dox farata ñëw tombeek coow li ñu naan dañ koy jël ak duñ ko jël comme mooy suñu yaakaar ñu ñëw jàkkaar la buntu kër gi di xool ndax danañ ko jëlam duñ ko jël waaye nag li gis fii ci Ziguinchor kii jël si Seydina Ousmane Sonko laa yërëm man ñooñu yërëm naa leen hé jola yi de barki alquran ku dugg seen mbir dang ko xamut ñu ngi ni tok ndax duñu foyé sayidina ousmane sonko moy yaakaaru sénégal di yaakaaru afrique fassé ne fay jëlé système ñu ngi tok añ suñu supu yu neex def suñu ataay président nek ci bir di dalu ñu tok dakar lu kër gi di surveiller kuy dugg ñu gis kuy génn ñu gis gaay focus 2024 président ousmane sonko 2024 inshallah ñu nak mom bir palais focus Focus incha allah. Focus 2024 mooy sunu yitte moom la Ousmane Sonko joxe comme ndigal kon képp koo xam ne militant nga wala ngay sympathisant Pastef waroo am beneen yitte bu dul Focus amul kenn kuy dox ci kaw suuf kuy noyyi wala koo xam ne taxaw na am doole kàttan ngir mën a éliminer ci course bi nga xamante ne dëpp bu yàgg Ousmane Sonko mu ngi ci nekk ngir bëgg soppi askanu Sénégal soppi taay ta yokku taaraay ba waaye nag. naafeq yi nga xam te saa su nekk ñu ngi nekk ci biir Sénégal ñu jox leen ay ndombal tànk ñu defe na ñoom dañ ko donn ci seen jur di piétiner ak di sonal ñi nga xam te ñooy askanu Sénégal ñun ñëpp dañ leen war a démasquer boo ko laalee dinañ la laal waratul doon ab way déedéet dafa war a doon loo xam ne automatique Macky Sall moo la gën a xam ne Ousmane sunku du moroomam la gën a xam dayoo bi Ousmane Sonko am moo la gën a xam ne Ousmane Sonko su ko bàyyi mu jàll moom dootu am dara.